mu nekk ay fourgon yoo xamante ni yéeme na te doy na waar dèjà am na benn drone boo xamante ni ñu ngi koy dawal ci kaw loolu yëpp dafay veillé si sécurité bi maître Ciré Clédor am na lu muy wax ji bi mais Ousmane Sonko euh, génnee nañ ko ci oto bi nga xamante ni ji euh, foofu la nekkoon ñu dugal ko ci beneen 4 x bu ñuul xaw ma ndax parce que luy problème bi mooy ñoom dañ ne euh, avenue Cheikh Anta Diop la ñuy jaar alors que dañ leen a exiger benn itinéraire maanaam ñu jaar ci nga xamante ni moom mooy sa corniche bi comme tamit ñu ko daan defee ji bi joni loolu nag mooy li nga xamante ni moom moo fi am jamono ji waaye jàppal ne na arrestation am na koo xamante ni ñu ngi nii di ko jàpp am rapproché euh, jot nañ koo gaaj voilà garde rapproché Ousmane Sonko bi ji bi yaa ngi may dégg dëggal la dañ koo dóor gërën dañ koo dóor gërën naan lacrymogène gis nga ñun sax côté bi ñu nekk nii tey bu nekk toon euh, casque bi nga xamante ni euh, jox nañ ñu ko ak équipe Sénégal set bi konoon musiba mun naa am parce que dañoo enchaîné di dóor ay grenade lacrymogène saxaar saxaar bi jóoruñu loolu mu nekk mbir moo xamante ni doy na waar ba ci téléphone bi nga xamante ni moom laa yor nii di direct gendarme bi mu daanu mu tot mais heureusement li ma doon def arrêté wul ndax xam ngeen ne euh, gis nga ñu ngi nii gàtt oh jibi yaa ngi dégg noonu oh c'est incroyable c'est li fi nekk nii daal doy na war waaw Ousmane Sonko jamono jii may waxee yow bougé guñ ci rond point Mermoz bi mun ngi dugg dañ ko wàccee ci oto bi mu duggoon GMC bu bu bu marron clair bi pompe la duggoon ñu wàccee ko. muy rot kii kii alors moom mooy si beneen 4x4 bu ñuul nga gis noonu si image yi 4 euh, x bu ñuul bu am drapeau bi xale bi voilà ani yéen xale xale bi yor li nga xam ne moom moo di drapeau bi mais gis nga police bi mu ngi toj oh gendarme bi toj na li nga xamante ni moom moo di oto bi toj nañ yàq nañ oto bi jibi jibi jibi jibi gendarme bi toj na benn oto Ousmane Sonko toj vitre bi xoolal image yi yéen a koy gis noonu xaaral ma zoom ko jibi yaa ngi koy gis noonu oh gendarme bi toj na vitre bi lii c'est triste oh, toj nañ ko toj nañ vitre bi définitivement xool xool ko xool ko oh jibi c'est triste jibi nekkatuñ ci sécurité fi mu ne nii ci benn sécurité jamono Guy Marius Sagna oh gaañ nañ Guy Marius Sagna encore mu ngi jooy Guy Marius Sagna mu ngi jooy Guy Marius Sagna mu ngi jooy ci bët Guy Marius Sagna mu ngi naan bët yi Guy Marius Sagna mu ngi naan bët yi am na lu si nekk oh ñu ngi évacuer Guy Marius Sagna oh oh là là oh là là ñu ngi évacuer Guy Marius Sagna oh Guy Marius Sagna dafa mel ni dafa xam. bët yi la signalé oh bët yi la signalé Guy Marius Sagna mu ngi noonu ñu ngi koy dugal ci oto bi oh Guy Marius Sagna Guy Marius Sagna mu ngi noonu ñu ngi koy dugal suñu oto bi Guy Marius Sagna mu ngi noonu. oh Guy Marius Sagna mu ngi noonu. oh Guy Marius Sagna mu ngi noonu dugg na si oto bi. jibi yaa ngi koy gis noonu ci oto bi ma nekk lañ dugal Guy Marius Sagna oh jibi jibi yaa ngi may jibi jibi gis nga li ma la mën a wax jamono ji mooy yàlla yàlla def ndox bu sedd parce que li nii wóoratul li may gis nii wóoratul wóoratul parce que daa ne yow séparé yëpp tas nañ ñëpp na ni ay tiir ngay dégg fii ci rond point Mermoz oh, nañ beneen oto bi non no non jibi jibi c'est incroyable c'est trop voilà benn talib saw mu ngi bi nga xamante ni dafa ànd ak Guy Marius Sagna moom tamit mu ngi jàppante ak gendarme yi yëg na ci beneen oto bi waaye daal jàppal ne jibi joni euh, fi mu ne nii am na ay manifestation yu tàmbalee am fii ci rond bi nga xamante ni euh, moom mooy rond point ndax xale yi dañoo taal ay pneu partout ci tali bi partout. ah Tanzil voilà Sonko dugal nañ ci sa ji bi oh ñu ngi toog xanaa bi oh door ko waaj. Oh, oh gaañ ko gaañ ko gaañ nañ ko gaañ nañ ko gaañ nañ ko gaañ nañ ko. Oh, waa ji deret bi tax na ci oto bi. Ousmane Sonko dafa mel ni Ousmane Sonko est-ce que dugg nañ ko ci biir kii bi. dinañ ko dugal ci fukki bu gendarmerie. Ah, ah, ah, oto bi bi voilà Ousmane Sonko dugal nañ ci oto bi. oh attention attention mais oto bi mu ngi jaar ci kaw beneen oto bi. Jibi. la wane la jaar bàyyi c'est incroyable Jibi c'est incroyable. yaa ngi gis oto bi jéggi na ci beneen oto bi jaar si kawam. waa ji nee na caabi ji la yor dafa bëgg a posé yàq nañ oto bi définitivement yàq nañ oto bi définitivement parce que bi dafa jaar ci kaw oto bi. oh c' est incroyable c' jibi jibi yaa ngi gis Ousseynou Ly bu Pastef Ousseynou Ly mu ngi doon mu ngi koy ñu ngi weq Ousseynou Pastef weq nañ Ousseynou pardon pardon pardon den way to den way weq nañ Ousseynou pardon den way bi ni oh weq nañ Ousseynou li day jeex barki yàlla li day jeex weq nañ Ousseynou ban télé jàpp no combat bi la lay jeex weq nañ Ousseynou mais sa waay du noonu sa waay amul ay gori ay salta je le dis à haute voix récupéré nañ ko mooy oto boobu ngeen di seen maa ngi koy zoom noonu ngay gis oto bi Ousmane Sonko dugal nañ ko fa am na oh, fi Guy Marius Sagna na ni information bi ma lay jox xam nga démb Guy Marius Sagna dañ koo dóor grenade lacrymogène tey dañ koo dañ koo dóoraat bët yi dafa am problème parce que guy signalé na bët yi de jël na loxo bi teg ko si ñaari bët yi ne nii finalement Ousmane ngi noonu ñu ngi koy yobu oh conduire nañ Ousmane Sonko mu ngi noonu di